mbokku internet ñi topp ci Dakar live ba tey rek ñu ngi fi nga xam ne moom mooy euh, Thiaroye sur Mer ñëw ci euh, ñetti xale yooyu nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci oto mu bari information yoo xamante ni daf ci génn ah am ñoo xam ne dañ ne dañ leen xooj am ñu ne dañ leen rendi waral ñu ñëw ba fii ci Thiaroye sur Mer ñëw ci famille bi nga xamante ni sës nañu ci xale bi su ko defee ñu jox ñu ay information ginnaaw Ousseynou euh, ñu ngi toog ak koo xam ne sunu maam la di maam ci xale yi moom itam dañ koy dékk naka lañ def ba dugg ci oto bi ndéem xam na ko maam maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di la jaale li bokk xale yi moom rimoo bi ne denk si dégg daal ndax am moom ku nekk la sa xalaat rek ngay wax xale seen kër tante lañu demoon yóbbu benn bool waaw bokk ak seen papa wala seen yaay ñoo bokk ndey baay bokk ak seen papa ndey baay ak seen yaay kër googu lañu demoon waaw ñu jóge fa di ñibbis ñi ñibbisi daal diggante puur bi ak école arabe bi daanaka benn mbedd la soreewul lu leen mënti daal daal diggante boobu fi la leen dal dal fekk dañoo toog ñëwuñu ma yónnee fa seen tante bi ne newuñu fa te fekk man maa ngi génn pour dem benn dëkk man na xale bu ngeen pare ngeen seeti xale yi ndaxte yónnee naa fa seen tartine naw te après man ma ñëwee ñu ne ma xale yi de ba nga demee tey ñëwuñu ah man tey ma demaat sa kër ga wu ñuy fowe laaj leen ñu ne nawuñu ma dem wër si côté boobu yëpp gisuma leen dem sànce gisuma leen ma wàcc si suuf wër côté yooyu yëpp gisuma leen ci laa ñëwee si kër gi. man naka xale yi de gisuma de wër naa ba sonn si la ñëpp a jóge nag ku nekk dugg wëri di seeti dañuy wër ba une heure du matin ñuy wër ñu demee ba xam na une heure na ah si leen xam naa ku leen manti for ba asamaan sa tëdd nga leen génn dem nañ ba ay baxtaat fu ne aw nañ fa foo dem ñoo leen xale ñu siy loxo maamal yi ngeen doon dem pour gëstu. pour gëstu foo dem ñu ne xale ñu ngi siy loxo ah loolu daal lañ si am. xale mi ngi ciy loxo mooy maanaam fi ñu nekk bàyyi wuñ fa seen. waaw waaw léegi bi ñu xëyee seen tante bi ñu doon dem benn doomu baayam woo ko nag am na xale yu nekk fële sa benn maalu oto demal nga xool leen ba xam na ñoom la seen tante bi ne leen loolu mën ma kaa xool. xaaral mu woo mu woo seen tonto seen tonto ñëw dem ñëw fi si man dama ndax awa dala ma ne lu xew ah man tamit ma toog sama ne continuer sama julli fi may jullee ma dégg mbedd mi ku nekk di yuuxoo xa xalaŋ ma génn waa lu xew ñu ne xale dañoo feeñ man ka feeñ nañu anañu ñu ne maalo oto lañ nekk waaw oto bi ci maal bi la xale yi dugg. waaw xaw ma dañ see dugg daal xaw ma ndaxte foofu ñu foofu ñu feeñ ñun wër nañ foofu la mat fukki yoon ak juróom. tant maanaam yoon bi muy faral di jaar fa la xale yi jaar. fa la ñuy jaar ndaxte dañ daa dem toujours di ñëw bañ fa dalee ëpp na ñaari at ñooy demal seen bopp ñooy ñëwal seen bopp. ba ñu demee nag seen taat na leen toll ñu ne ko tey tooguñu dañuy ñibbi waaw romb di ñëw. lu leen mën di dal daal si diggante boobu bu gàtt boobu daal fa leen mën a dal. moo jox seen tante information que ne xale yi am na oto bu gaare ay xale. benn maga moo doxatu woon fajar mu dem gis coow li mu dem si moom naka am na xale yi nekk fële dama xool ba xam na ñoom seen taat ne loolu man ma xool. dem woo ah, benn seexam bi mu ñëw seen tonto dem xool leen. bi mu leen di xool sax police nanguwul pour pa seen torto xoole dañ dañ kaa foto seen kanam wan leen fekk moom yor na appareil bi mu yore kii portable mu génne foto xale yi mu naka xale yi nga foto ni jox ñoo nekk ni xale lañu séddéem ba tey loolu daal lañ si am. moo njëkk a gis xale ci oto bi. xamu xamuñu ko ko njëkk gis ndax man maa ngi fii ñoom ñu nga fële xale yi feeñ na daal lañ si am. ba ñuy demee ah fekk fekk ñu fa bekken daal ñoom ñett ñëpp a dee waaw. rendi bi ñu wax wala xoj ba ba ñu ñàkk seen bakkan ndax dëgg. ah gisuñu ko de man nag gisuma leen waaye seen tonton bi leen xool nee na kanam gi léeg-léeg foto wan leen xaw ma nag bàcc lu si mënta am si biir. tey maalu oto boobu nga xam ne ci la xale yi nekk ba ñàkk seen bakkan njortu nga ne xale yi mën nañ fa dugal seen. yàlla daal ci sa njortu rek ndax loolu lu lu logique la quand même ñu ne xale ci maalu oto lañ lañ leen fekk ndax tey bu fekkee maal la euh, peut-être benn xale mooy dugg wala ñaar mais ñoom ñett ñëpp mënuñoo duggandoo ci maal bi tey ndax logique na ñu euh, xale yi dañ ñàkk seen bakkan ci maal lañ leen fekk ñoo fa dugga seen. Ah, man xaw ma ñoo fa dugal seen bopp xam nañ leen faa dugal daal ci maal bi lañ leen fekk ay xale yu ndaw bi la lañ leen fekk leen fa fekk tamit ñoom ñett ñëpp a ñàkk seen bakkan waaw. carton yi dañ leen ray ba pare sog leen dugal ci maanaam. ah yàlla xam man ko yàlla xam. amoo leen suspicion ci kenn wala ngeen njortu ni peut-être am na jote bu dox ci seen diggante ak ñi leen jur wala kenn koo xam ne peut-être njortu ngeen ni moom moo def ñaaw. ah fi ne daal lépp nañ ko teg si loxo yàlla ak yoon yoon def liggéeyam bu fekkee dañoo rey fekkee yàlla moo rey a ah, muy noonu waaye fi mu ne ni ma see wax xam na lii gisaguñu du dëgg. DNA daal lañ si am waaw. xale yi dañ daan fooyee côté bi ñàkkee seen. waaw dañ fay dem toujours bu ñu xëyee jël seen ndékki dañuy dem seen kër tante bu ñu demee seen tante xel dañuy dem seen tante leen ndékkiwuñu te dañuy ndékki fii bu demee seen tante xel laatee ndékki ñu ndékki bu ñu toogee foofu ba ba seen xel ñëwaat ñu ñëwaat si kër léeg-léeg ñu yend fii léeg-léeg ñu dem yend foofu ba ay takkusaan ñibbisi te ñoo indi seen bopp. xale yi waxtu bi euh, yow en tant que maam daan nañu nekk ci kër gi di foo ak yow di dakkante parce que ku ne xam ne waa xam sët ni mu neexee ci maam moment bi bu ñu xësi ba wàcc fii la ñuy ne ba tëdd jot ku nekk jël sa doom nga dem tëdd génnuñu fen fii la ñuy ne bu ñuy jàngee ba ñëw fii la toog wala bu ñu jegee sa seen kër tànn mën naa am ñu dem géej sangu ñëwaat si kër gi tey gisut man nag suba guddi képp sama néeg bi ku fi dugg ku ne boo ñëwee fii ngeen leen fekk si kaw boo ñëwee fii ngeen leen fekk si kaw lal ñu toog niñ ma tax sa taxaw ñu seen yaay taxaw tax euh, niñ ma tax taxaw ñu seen yaay te seen yaay liggéey boo wàccee toog nga sa kër ba ngoon nga jëw jëw sa doom wax gouvernement bi ci wàllum enquête pour ñu xam bu fekkee tamit yàlla moo faat ñu ne alhamdulilah bu dee tamit nit a ko def yoon teg ko loxo ban message ngay lancé ci ci état bu Sénégal pour ñu rek euh, gën a jëmmal li nga xamante ni moom mooy enquête yi ngir ngeen ah lancé bi moom na yoon def liggéeyam rek nu mu ware bu fekke ne yàlla moo rey ah ñu xam bu tamit la nee nañ ci ah yoon def liggéeyam daal loolu sama xalaat. si ñu ngi lay jaale di ok ñoo ko bokk.